dañ ko daal di faram-fàcce si nu mu gën a yaatu suñu époque itam euh, bokk na jëmale si ki nga xam ne moo di kàddu yi nga xam ne itam Birame Souleye Diop yëkki na ko daal di koy jëmale euh, si li nga xam ne moo di ñun fal yees si li nga xam ne moo di gouvernement ba ki nga xam ne moo di euh, Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye ndax nee na képp ki nga xam ne itam tuddee nañ la si ñeente wala làmm bebo yàq nañ ko ndax duñ la gis exactement des na daal di faram-fàcce si nu mu gën a yaatu suñu époque bokk na Arfan yi li nga xam ne moo di ñu ne Mame Mbaye Niang seetal nañ aussi rapport bi nga xamni ni itam ñoroon na walu ko Prodac li nga xamni ne itam doon si tuddu mom ak ki nga xamne ko modi moo di Maimour Faye des na ko daal di faram mu gën yaato exactement si bix li nga xamne ko modi miri ce qui n'en est réellement lan mo daal xew si bobu li nga xamne ko modi mir des na ko mu gën yaato den dinañ si itam si ki nga xamne ko modi bourguewel mo gën dal bu baax baax ci kaw ki nga xamne ko modi ki nga xamne ko modi si kaw biram sulay job si kàddu nga xam itam ko daal koy jëmele si nga xamne rek Modi di ak mbëri et tant d'autres et tant d'autres suñu ay ponk yi itam bokk na ñeel passation de service yi nga xamni tam némé ko nañ ko naka dem bëri na lool ñi nga xam ni itam ñoo daal di jokkalante li nga xam nekk mu di yi si noonu ki nga xam nekk Ousmane Sonko woté na li nga xam nekk mu di ni daal di si tam si les dernières conclusions yi nga xamni tam itam toné ko en conseil des ministres ma ne kon suñu xool nag li nga xam ne moo di conseil des ministres bi passé euh, était question justement euh, d'augmenter les pouvoirs euh, du père madame premier ministre ki n'a xam ne moo di Ousmane Sonko waaye Souf, mais li nga xam ne poste César, ak li nga xam ne moo di ay société loolu lépp ñu si di ñëw si mu gën a yaatoo si mission li nga xam ne le truc de matinal bu bi alors tout d'abord afam da nga koy daal di doxee ak ki nga xam Euh, son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay euh, croisé na ak li nga xam ne moo di justement imam ratib bu li na xam ne moo di euh, grande mosquée daaw nag ku nekk xamoon na li nga xam ne moo di coow li discours xubba bi nga xam ni itam defoon na ko arfan arfan image bu nu mel na ko daal na ko na ko daal di jàngatee ak aussi li na xam ne moo di imam yi ñi ngi fàttali son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay xewal wala kon neexal yi nga xam itam Macky Sall na ko jox chaque mois waaye itam chaque événement su dal di jublu sey alors man damay damay damay tambali d'abord abord euh, ci image bob bi ngeen gis image euh, de retrouvailles entre euh, l'imam ratif donc de la mosquée de de de Dakar et aussi son excellence Bassir Diomaye Faye. Mm. l'image est symbolique. Mm. seigne Fallo l'image est symbolique dañu nak ci ay moment de spiritualité bon xamantene spiritualité spiritu spiritualité mm. Mm. moment bobu lañ nek moy mm. manam l'islam mon ñu retrouver lo autour de l'essentiel donc que ku dem julli ci juma donc grande mosquée de Dakar yow da nga dem parce que jullit nga da nga dem parce que musulman nga da nga dem parce que yalla moko santane am yalla yalla la mo la fa tax nga dem donc si son excellence Bassirou Diomaye fay dem na julli ci mosquée boobu bu Dakar ba mu tase ak imam mu doon accolade mu doon nuyonte mu doon baalu ak parce que julli temps da ngay baalu ak hmm. ci korité bi ci tabaski bi ci les fêtes religieuses yàlla ne la baalu ak hmm. ku la tooñ ki nga xam ak ki nga xamul baalu ak je crois que moom le Bassir Diomaye Faye def mom la aussi imam def mu hmm. donne une image symbolique bo xamantene lu melni ni Sénégal wala askan Sénégal lëm soxlan ñu ces arts d'image le pardon malgré nos divergences man aussi gis nga imam bi ci cadre cadre yi ñi jël ni diko diko diko andi di ci la chaîne hmm. mooy manam bu mu waxo ni que hmm. kep ku gañu ci manifestation safara nga jëm xam nga moment boobu dafa juum non dafa juum il a reconnu que dafa juum xama imam bi peut-être man dama fane ci ay yeneen anam la ko bëgg waxé hmm. mais xama Sénégal mom perception bi daanaka euh, wax mom comme bal bu génné rek acca demna té aussi il va de chaque Sénégalais de la manière nous koy interpréter hmm. imam bi bu waxé lolu pour man dafa bëgg titel xalé yi pour xalé yi jéem jël recul baña dem manifestation mais il n'est pas dit ku gagne une manifestation safara nga jëm parce que manifestation a la mort moo koy def. Mm. ci kaw suuf. Mm. ak yàlla lum ci namm. parce que ces manifestations loo fi gis ci la suuf yàlla moo ko tax ndogal yàlla la ci coobareem donc yàlla moo tudd d'une arfandé dina dem manifestation ba jëlee fa gàllankoor wala na ak leneen exemple laa joxe yàlla moo de loolu mais aussi ci manifestation bobu dafa am yalla lu mu namm te yalla lu mu namm mu ngi ni jëlee fi lu fi nekkone depuis 1960 ba léegi yalla ne leen balaa may changer lolu du du don lu yomb fok yéen sénégalais vous mettez les mains dans la pâte c'est-à-dire que fok ngeen impliqué wu il faut que ma jaaraleen ci lu metti pour ma mën changer. mooy ces euh, cette lobby là bu ngànkoon accaparé woon économie Sénégal depuis cent 1960 yàlla ne leen duñ ma la ko du du ma ko génnee mais balaa ma koy génne il faut que aussi yéen ngeen ma jaarale leen askan Sénégal ci fu métti mooy maanaam manifestation yu am mm. ay mort mm. mm. mooy maanaam le sacrifice nga gis ay nit di dee pour que Sénégal mën a moom boppam yalla mo namm lolu c'est clair donc. donc imam fay dama yakar ni côté da fa djoum hmm. mais war nañu faté lolu seigne Fallou. Sénégal moñu moñu gëna moñu gëna li hmm. que les gens renouent le passé pour djema takal wala djema tilimal ay ay ay ay images nekkuñu woon fofu hmm. dañu nekkoon ci moment de solennalité de moment de rafetal rafetal bëgg lu baax. nekk à longueur de douze journée dina baal ma ak baal naa la yàlla ñu fekkee ay déwén yu bëri. Hmm. di ñaanalante ci moment boobu la ñu nekkoon mais nekku ci moment boo xamante ne da ngay andi renouer le passé pour de non imam bi moo waxoon lii ku ku gaañu xawma ci lan ak lan léegi moom mu ngi ni retrouver avec Bassirou Diomaye Faye la preuve. Hmm. vous avez comment il a salué day wane que ni Sénégal benn bopp la kenn mais kenn mënu ko xar ñaar. Euh, suñ fal bëgg wane moo tax euh, du fàttali sax. voilà xam nga pour wane ni benn bopp la. xam nga ñun Sénégal moo ñu ñor. Hmm. Sénégal la ñu bëgg képp ko gis muy yëngatu wala muy muy sacrifié pour Sénégal dafa da nga xam ni da nga war a gis ni que ku bëgg Sénégal ku bëgg réew mi ba ci imamia yi ah. dañoo bëgg Sénégal peut-être loolu la gis moo tax mu waxee ko noonu hmm. sénégalais lambda bi déggoo ko tamit ci yeneen anam mais je crois que loolu jàll na parce que loolu imam yi il faut aussi ngeen xam benn une une affaire il faut que ngeen xam benn affaire hmm. Sëñ Fallou hmm. imam yi président bu ñëwee au pouvoir en général imam, yi ci côté am tu ñu gën a féetoo ci ci opposition bi. Hmm. il faut que aussi ça c'est c'est une affaire coutumier il faut que sénégalais xam ko. je crois que dégg naa fi dégg nañu fi euh, euh, Abdou Abdou Karim Mbaké borom makal makarimal ak la ba muy ne yenn ndaw yi mën ngeen feto ci opposants mais ñun mag yi ñun nguur bu ñew ci mom lañuy la ñuy parce que tu sais pourquoi dañuy né cette sagesse cette sagesse là ama mag moom day rimer ak sagesse. Mm. maintenant sagesse dafa war accompagner le président de la république. ñoom sëriñ yi ci contexte yooyu lañ ko lañ ko lañ ko jàppee. mais mm. jàppewuñu que xale yi lu ñuy def nii wala lu ñuy révolution bu ñuy mën révolution bu baaxul la. mais ah, bu baax la mais ñoom il faut que ñu rassurer président bi parce que loolu mooy sagesse alors c'est clair c'est clair Euh, ngi donc par rapport à li nga xam nekk moo justement cette rencontre entre le président Diomaye Faye ak ki jamais xam justement, il di justement imam ratib bu li nga xam nekk moo di grande mosquée bu Dakar après dañ daal di c'est tam si leneen euh, si wàllu woowu noonu par rapport ak toog bi dox bi ah ak réponse pour ki n'a xam nekk moo Oustaz Modou Fall mais tout d'abord dañu daal di dugg si wàllu actualité tout d'abord actualité récente bi nag mooy ginnaaw rapport bi nga xam ni itam euh, génn na si li nga xam nekk moo di mille milliards yu Covid 19 yi euh, après D'après Sénégal, une source bien introduite nous informe que la Cour des comptes a encore produit en janvier 2024 un rapport définitif euh, estampillé euh, confidentiel relatif à la gestion du PRODAC, annonce le journal Critique dans sa parution euh, de ce jeudi 11 avril 2024. Donc, d'après l'Inaramne Critique, jeudi 11 avril 2024,